Empate. tey sa doom day war a bëre ki muy bëreel nga xam ko bu baax muy Ramdan ndax yaakaar naa ni laale ngeen yéen ñaar. Mhm. waaw sama doom day mooy bëre yaa xam bool di ñaan la katoo suñu borom may ko ndaw. Mhm. ki muy bëreel tey jii nii yow xam nga ko bu baax. lan nga koy wax. waaw xamante nañ maa ngi moom bëri nañ suñu borom defal ko ndam moom mi incha allah di ñaan la katoo suñu borom may ko ndam bu seedu defet gi nga am ci kanamam yaa xam bawal da koy yóbbaale wala. non non loolu mënul nekk defet ñaaroon mënul nekk dañ koy ñaanal rek suñu borom la 14 may ko ndam bu sedd guy. kon yaa xam fi mu ne nii revanche lay bëre. revanche lay bëre waaw. day faj sa defet ak victoire ak victoire am waa dëkk bi ñoo soxla quoi ñoo soxla combat bi noonu la demee. sa waay nee na na mu la defoon noonu la koy def. non xalaatam la wax rek mais ñi ñi yemuñu quoi nekkuñu benn te la 14 incha na si gis sa poulain di beure ngeen bokk gox muy yaaxam bawol tay ñu gis la nga tew ci open press am bi la mo waral sa teway wa comme ni rek gis moñ fekk ni ay morom lañ te tamit xam nga nim fi nekk ay morom cieur gi xam nga bëgg xam nga maa ngi du sax ay ay ay lamb ak yoy pum mu sama dom la. wa mo tax nak basam ak basu gaay yi dama ci daf xar sama tank way ñew tew ni mo war tewé pour ñaanu ko gunge ko ñaanu ko suñu borom may ko ndam la 14 kàttan suñu borom. lamb ji jégen na danaka préparation yi jeexna tay ji ni lan ak lan ngeen ko yebee. wa li ko Pas nak dafa am lo xam ci mom waxtanu biir lay doon quoi parce que tax moy man awma len luma ci tit parce que nek ni chek ay moromam préparer ba xam ci man tax doole jum am ni ci combat bi musuma yaakaar sax dina ko gaaw am. combat bi musa beure bi la gëna am yaakaar te yalla ngi yalla sutural ba ya tax yaakaar am ci ndam amul len lo xam dama koy wax li nga xam ci manam war na jëm kaw luddul mag mom ak staff ñu tok waxtan mu bëral ni liñ bëgg yalla may ñu ndam. am ngeen ci moom yaakaar. jouru combat la 14 lu adversaire am daf daanu këram lay commencé daanu dugg ci oto bi daanu ba egg stade daanu ñibbiwaat daanu. xam ngeen ki ngeen di bëre. waaw làmb moom léegi nag ñëpp xamante ñoom surtout ñoom xale yi parce que li tax mooy ñooy bokki groupe WhatsApp yi di toog di waxtaan waaye làmb bu jotee nag dañuy dem bëri kon xamante nañ loolu ñàkkul waaw loolu mu umpuñu. yaa xam am fu mu jóge am fu mu jëmaat loo koy wax. waaw li ma koy wax rek mbëru gox la mbëru dëkk la gis ne fii ni mu demee tey lii rek bu ko xoolee mu amul lenn lu ñu koy war a woo xam loolu lii mu xool xam fi mu jógee fi mu jógee moo koy wan yoon parce que dañ ne reculer un peu première sauté la tolloon li mu jógee yàqu si yoonam dara parce que bu nekkee làmb mbooloo mooy tax combat yi baax ak état forme bu normal moom mi ngi ci am na état bi te gox topp nañ kon yàlla na yàlla sutaal may ko may ñu caat siyaar nañu la. loolu la ñu siyaar baax a baax di nuyu gars yëpp. caat tey ñu gis sa xarit sa doomu ndey di bëre am open presse ñu gis nga teew fii tey jii la moo la moo waral loolu. waaw yaa xam suma frère la c'est le frère tey bu taxawee rek geesu gisuma day am leen lu muy nduru te man man maa koy mottali ci lépp muy suma frère ñu bokk benn traite maag moom bu xewlee mën naa ne ñoo bokk ndey ak baay sax kon bu xewlee maanaam du ma toog aw ma toogaay maa war organisé maa war def bés bi sama bés la sa bés la bu jugee ci combat jëm ci combat wàccaa waaw waajaay ni ñu war a waajee waaj nañ ko comme ni ñu daan waajee mu ndaw ba léegi ci làmb ji kenn mënu ne yaa xam ngeen ma mos na laa lay fii suuf kon dañ ko préparé mu ñëw làmb bi ñuy passé erreur la décision arbitrale la kon tey war na xam li koy xaar nee naa ko ambiance dañ koy waajee ci kàttanu suñu borom ñu dem def lu jur prouvé fay wax yu bëri incha allah indi ndam li caare muy bëreeg xale ba nga xamante moom tamit mës sa ndax adversaire bi étudier ngeen ko bu bon xam nga lamb moom ak yaa xam ne dañuy préparé sa mbër moom ak xam dañuy préparé mais man xam naa ne su ma ragal ci kàttanu yàlla yàlla da koy may ndam te nañ ko war a waajalee waajal nañ ko ak waa Thiaroye waa Yaraax ñëpp jàpp ci ñu ñëw war a am ndam bu rëy ci kàttanu yàlla te le maa koy yóbbu man Thiaroye Yaraax ñu daan jël bu rëy incha allah indi ndam ndax dina yomb état de forme bi mu am sa xel dal na wala. non sama xel dal na instant bi bu ko neexee sax ne la yu ba samedi sama xel dal na ndax moom ci poids lourd la gën a aay ku nga xamul ndax premier combat am ki ki mu doon bëreel mu nga fuuf maanaam man yenn poids légers yi sax ñu tuuti ñu tuuti ñu laa koy laa koy laa koy jiital ponkal loo mën a toll yaa xam da a ndax moom mbabat boo ko seetaanee iri mi seetaan ay ponkal kese lay daan ci mbabat bilaay Kébé. ah xanaa bëre daan ñibbi rek ak lu baax rek dem daan ñibbi rek incha allah loolu bu yaay kan. man maa Ami yaa Ami bu yaa bawol. waaw bu yaa bawol. waaw yaa xam pare na. yaa xam pare na bu yàgg day xaar bis bu jot. bu yaa bawol. waaw lépp jàmm. naa yéen a ngi waaj. waaw ñu ngi waaj waaw. léegi nag lu des. waaw xam rek dóor bu daanu rek yaa ko gën a bu daanu ngeen indi.

bëggee Samba la yëpp rawatina waa Thiaroye yëmbal 100% Thiaroye yëmbal sama sant maa ngi leen di bëggee bu baax a baax sant maa ngi leen di bëggee ku lu mbër ki takk ngemb rek ki nekk si gox maa ngi leen di bëggee di leen jox seen wàcc di leen ñaanal jàmm lépp loolu bëgg si la nga am si ñu kanam ñu ko yeggal di bëggee suma frère Thiatou Yaram ba ñaanal xam nga lancé bu nekk wala ñaan yàlla suñu sama bopp arab ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko encouragé suñu jëriñu bu ñu dellu see rek dama naan mbër avant tout ci mbër yi fi teew déjà parce que écurie benn bag mbooloo teew nañ fi écurie mbooloo teew nañ fi écurie Jali Ibrahima Thior teew nañ fi écurie askan bu Yaraaf sax teew nañ fi écurie Thiaroye mbooloo nag moom waxaale wu ma ko ce qui ni gars yi dañ jóge fu te te de fii ñàkk jëm ñëw taxaw mooy ambulant ñoom gris ñoom écurie Thiaroye mbooloo gars yi dañuy représenté dignement ah. sa waa kon aussi gis naa leen ñoom kanam gis naa euh, Kooba Thiat Yaraax jóge ba Yaraax def déplacement jarosement ñëw taxaw écurie euh, Bawol mbooloo sax gis nañ leen fi alliance Birame ñëw la représenté ñaa may dégg yëmbal Farba gars yëpp mobiliser doon benn donc déjà loolu mooy loolu mooy loolu mooy sa priorité n'est-ce pas gars yëpp nañ booloo doon benn mais buñ mën ko wee doon benn ça veut dire que yow sa xel day dal waaw loolu la yàlla def parce que maa na mbooloo ma doole waaw damaa gis ne caaro yëmbal sam de benn baraak beeg yarax beeg ñëpp buñ booloo gunge seen doom amul lu leen mën a indil lu làmb di soxla mën naa ko ñeme naa ko xama xam naa li may def bu baax baax ñeme naa fu ma jëm tamit loolu ñu ragal kon jàppaloo rek laay ñaan xama jàppoo doon benn di ñaan nag waa koñ bi ñu xam ne seen doom mooy soo ko waat jàppale bu baax a baax parce que lu yeneen ko ñu am mën nañ ko laay wax ndax dama kese maa fi nekk surtout mobilisation bi ñu jàppale parce que amuñu lu dul yéen ñu drapeau caaro yëmbal moom ñoom moom la ñuy xeexal waaw nag grand frère yëpp génn nag gunge ñu ñu defal leen suñu jëm dem na mbër yi ñoo ba pare buñ bëree mbër lañ buñ naa seen taxawaay Aliou dama lay yoole ah, dama lay yoole gars yi seetaan xam loolu ci yow da ngay fa da di mbër moo xam ne saa yoo jëlee combat ñëpp boo am dara boo demee da ngay créé surprise boo jëlee combat ñëpp ne yaa mën waa ji boo demee mu am nu mu demee mais seetlu naa say combat saa yoo jëlee combat ñëpp ne day nga dee doo am dara boo demee ci créer la surprise combat bi noonu la demee combat bi da nga jël gars yi ne la jël mësul daanu mësul daanu Ramdan London nag le jour J Ramdan daanu champion la mais xam lamb si ree ci am nga moo keroog lamb Ramdan maa ko war a jàngal lamb ko war a mu jugee ko arrière xam lan mooy lamb kenn tamit di nga gërëm Pétalo man question bi nga laaj mooy yaa xam moom ci combat bi passé dafa dem combat dem ànd fi mu dem yàq production arbitre ndax da préparé physiquement combat la entraînement ndax mu lay ko baag ak ñaata séance lay def par jour waaw Aliou loolu dama si sa war a tontu dama jóge ci làmb ja nga xamante ne nii maa ko doon bëree day suur ndaanaan waaw yaa xam boor man li ma bëree samay combat yi amul quatre minutes mais amaana nag noonu la ko borom bi bëggee jóge naa si am naa lu ma dégg loolu sama grand corps karam champion yëpp maa ngi leen di bëgg nag mais liggéey liggéey naa si nag mais ndaw mu naan ma maa ngi liggéey moom ay wax la rek pour si même ñu xam ci liggéey bi mbër laay bëreel champion laay bëreel damaa dénkaane samay bopp man balaa maa jël combat damay woo champion bi nekk mais alliance bi nag ñàkk a jariñoo ay Baye Ndiaga di bëggee cent pour cent yëmbal fi mu jóg ak ñëpp ku naa la woo ne dama am laa kii laay bëreel ñoom ñoo may wax ne mooy liggéey ak sama grand corps man damaa dénkaane sama a si mbëru gox bi léemu léemu barki Serigne Bamba bu sàmmee day daan ram daan coono jeex samedi dañuy rectifié bi ñoom def yëpp ci kàddu suñu borom kii amatul lu muy wax day dem jëf ñëw incha allah ñoom dafa def ñu jëf ram daan dama koy jeex dama koy jeex lii li fi gars yi li fi gars yi di wane nii ak lu nekk ci man mais maa koy xamal ne fasu raw la fasu raw bu réer ñaari fan te ñëw kër ngéwél loo comprendre comprendre di nga xam ne Thiès am na rendam na Thiès nga jël sa adversaire ko état mu am lu mu la wax ne la fuy bëree ñoom ordinateur di bëre ak ñoom rëg-rëg bawol jaaxalul mbapat léegi la neex mbapat léegi Ini neex Ini simple bu neexee sax Ini seentee ko tënk ñun mbapatu ini la ini topp suñuy gannaaw ñu ñuy dàq ñuy bañ mbapat yéemuñu Ini fii la mbapat fi dafa am sécurité ñun mbapatu guddi lañ doon dox di ko Ini bu ñuy dem mbapat ini naan ini toog ini ini. ngi dem ñoo ngi ñëw ini ini indi waaw kon moom li ñuy wax dafa mbapat jaaxalu Ini ñun li ñuy jàppantee doy nañ ñu waa ki jàppante ngay ñàkk jëriñu caatu yaram ñoom kooba li muy wax yéemuñu ma ñu gis démb mu def open press ñoom Ndiaye Tine ñëw ñoom carrière ñëw ancien champion yooyu noonu seedeel ko ne booy bi bu jàppee yaa xam bawol ngeen xam ni mbër jàpp na ko su la dóoree doo taxaw su la jàppee dóoree bu dóor bi jàpp dum indi maa ko ëppale maa ko ëpp saasaaru làmb junni yoon bokkuñu sax ñooñu ko wuy si man ñoo am wuy si nañ ma yaa na leen yàlla defal jàmm lépp leen bëgg yaa na ko borom bi defal doy làmb ji ndax xam nga fi la làmb ji di bii mooy sa buntu làmb ba ngay bëree ba léegi jàppal ni bi mooy sa buntu làmb ci médiatisation ci dayoo fan la la bi mën a yóbbu waaw mooy sama buntu làmb nee nag méttiwul waaw ndax waa koñ bi dañ maa yen ba pare tegal ma teeñ moo tax méttiwul liñ ma yéen tegul ko sama bopp direct gis na loolu tegal këyit ànd ak man dooleel ma mi xale yu ndaw yeeg maire yeeg sama morom yeeg ñëpp ñëpp a si nañ gën a nañ gën a jàpp lu làmb laaj naa leen ko indil si kàttan yàlla maa ñoom ba roi des arènes nga ànd préparé mbër nga ànd préparé ak mbër muy Boy Kangam nga ànd ak moom ñëw stade Ramdan daan ko nga lëngu ko dem ñibbi loolu booy ñëw stade la 14 mooy ñëwee. waaw loolu di ñaanal Boy Kangam ndam loolu mu ndam loolu Ramdan am ci moom. waaw def mu yem fa di ko ñaanal xam nga yàlla suñu borom defal ko jàmm ci làmb lépp lu mu mu am ko dimbali si ay waajuram bu baax a baax a baax a danga ne Karam na yaa xam bool. yaa ngi comprendre kanam bu bu doon daan da koo daan mu toog seetaan rek amaana yéen bi mën a diis mais da koo daan mu ànd ak man ci liggéey bi wala man na war erreur bi mu defoon moom liggéey nañ ci bu baax a baax ak li ma liggéey denc ak li ma sama garant di jox ma war ko indi randaan waaw randaan na maa ko ñaanal jàmm waaw ba abir wàccee loxo bi ñu gis ni da nga confiance trop caatu yaraax ki nga xamante ne mooy ñàkk jëriñu ne bi nga am ci combat bi musoo am doole bu toll noonu. ñaan bu nangoo sonal borom am seen ma jugee jëw bi dama koo dégg dama koo déglu ba pare dégg ko ba pare jëfe ko dama koo déglu dégg ko jëfe ko. te incha allahu rabi la 14 dinañ si xam dara. incha allah. waaw kon ñu joxante rendez-vous la 14 rek Seydina ñëw yeggali nga tàggatoo woo say rawaluñ loolu tous day am kese day am ndam waaw mbër waaw gars yi tam ñu sori alors may leen ñu tuuti may leen ñu tuuti mais côté mobilisation côté mobilisation côté mobilisation gis nañu sa waa koñ teew nañu open press mais li fi teew est-ce que danañ teew stade waaw mama jin bu naree leex bu ko dafay xeeñ loolu lañ fi wane waaw ñun ci dëkk la ñuy toog ñun ñëpp ñu ne man aw aw ma adversaire. man mii ñaar par la samay rakk samay mag. mobilisation bi nag maa ngi siy woo dana si ko ñëw. waaw di ñëw waa Thiaroye yëmbal sam waaw benn baraat beeg xama yaraax beeg ñëpp di woo suma waa famille waa famille baax ak Maguette waaw di woo tamit suma patron Amath Sey waaw mooy directeur xama Ketal international di woo fans club Thiatou Yarakh beeg fans club ñàkk jërëm yëpp di ñëpp ñu jàpp di gërëm nag suma waa dëkk waa Bawol waa Saloum sama dëkk papa waa Touba waa Casamance maa leen di gërëm bu baax a baax waa Mbour xam waa di gërëmaan ñëpp di sakkuwaat ñaan si ñëpp di jégalu nag sama waa koñ maa leen di bu baax si dérangement bi nag maa ngi Touba te yeesu di sakku ñaan si yéen bu baax a baax a baax a baax a baax di leen gërëm nag yéen presse bi fi teew maa leen di gërëm bu baax a baax a baax a parce que temps amul temps moo gën a seer quoi xam nga sant naa leen gërëm naa leen di gërëm sama waa koñ ñëpp waa di ñaanal ñëpp jàmm bala 14 incha allah ñu defal leen ñu bëgg